أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ci suratul baqara ñuy jël tey ñaari aaya ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi jël aaya 267 268 ginnaaw sunu borom subhanahu wa taala bi mu sonnee bi mu soññee jaami yàlla yi ci ñuy joxe seen alal ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ci aaya yi passé tey aaya bi nekk sunu kanam borom bi subhanahu wa taala woona ci jaamam yi ci woote goo xam ne borom bi subhanahu wa taala moom la leen di woowee jamono ju nekk ak waxtu wu nekk mooy ci baatu ngëm lan la leen di wax mooy mu digal leen ñu génne azaka ci seeni alal wala ñuy saraxe ci seeni alal ñaar yooyu buñ ci mën a def joxe azaka ak saraxe nañuy seet alal ji la ca gën a baax ñu koy joxe ca lañu fàggu sarax li muy baax baax bul saraxe lu bon azaka li muy baax baax baax bul seet sa alal ci li nga bëggatul nga ni xaaral ma génne ko joxe azak comme ni ko sénégalais yi di defee waaye maye mbubu mum mu fëq wala mu lakk booy saraxe lekk la des xooñ yaag yax ya lu nekk rek da ngay xool la ca gën a ràpp loolu nag moom doo ci am tiyaaba ndax alquran moo ñu wax ne lan tanaalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu baax li ngeen bëgg du ngeen ko mën a am lu dul ngeen joxe li ngeen gën a bëgg nit buy joxe day joxe loo xam ne mu ngi ko bëgg kon suñu borom dafa woo jaami yàlla yi ci ñaari aaya yi nekk suñu kanam ci baatu ngëm ne leen nañu génne ci seen alal azaka wala sarax waaye bu ñuy génne kat nañu génne lu ñu gën a bëgg doomu ndey yi mbokk jullit yi ñaari aaya yi danañ ci jële juróomi mbir aaya bi ci njëkk mooy daf ñuy wax ne wujubu zaka génne azaka dafa war saa yoo jàngee ci téere yi nga gis ñu ne wujub mooy dafa war azaka boobu ñu ngi koy génne fil maali ci alal assaamit ak annaatiq ci terme boroom xam-xam yi langage yi ñuy waxee ak nit ñi yenn saa yi ñu ne dañuy génne azaka ci lu noppi ak luy wax suñ la nee war nañu génne azaka ci lu noppi lan lañ la bëgg a wax balaa balaa balaa balaa may dugg ci dars wax ma wax leen ne am na benn mbokk bu tudd soxna Awa Samb bu nekk Canada yónnee na mbokk yi cadeau comme mbokk bi nu mu ko defee woon fukki montre fukki montre incha allah mu ne question yi daf koy déglu gis ngeen de ñun ñu ngi Dakar am na ku nekk Canada ndeke di déglu am na ci ku nekk Italie ku jigéen France France ku tudd soxna Fatima moom tamit keroog daf ma woo ci buluxul maraam mu ne naa ci am damay tontu ma ne ko tontul mu tontu gañe mu ne ma sama buluxul maraam dama fekk si kii moom fukki montre la yónnee incha allah mardi mooy premier jour bu ñuy joxe montre yi mardi nag gaa yi boo ñu takku téere yaa ngi ñëw kado yaa ngi ñëw ah léegi billet màkk ñëw billet billet màkk billet umra ah kan moo leen wax kii déglu na def lii kan moo la wax ne amul ku mën a déglu la ko la leen ah aywa kon borom xam-xam yi nee nañ dañuy génn azaka ci ñaar as-saamit ak an-naatiq loolu lañ ci namm ku xam loolu am nga benn montre as-saamit ak an-naatiq ci lu noppi ak luy wax ci lu noppi mooy alal xaalis dafa fa noppi ah kon kii am na benn montre ki ma ki ma njëkk a am montre suñ ne as-saamit mooy nekk yemul rek ci xaalis or beeg xaalis bi ci la bokk xaalis bi ñuy takk xaalis bi ñuy lekk or bi ah jamaa bi yooyu mooy al as-saamit li noppi waaw ah waaw ak li ñuy bay an-naatiq mooy jur yi xam ne yooyu dañuy wax dañuy yëngu dañuy loolu mooy assaamit ak annaatiq ñaar yooyu yëpp nag dañ ciy génne azak borom xam-xam yi nee na ñaar yooyu def ci génne min azahab gis nga ci wurus wal fidda ak xaalis wa ma taqumu maqaamahuma ak lépp luy taxaw seen taxawaay tool yeeg kër yeeg oto yeeg yooyu yëpp day taxaw seen taxawaay yooyu yëpp dañ ciy génne azaka min al amali beneen bi mooy wa fi naatiqi ci luy wax min al ibili ci gëléem yi wal baqar xar yi wal ganamu gàtt yi is al kullu daaxil fi qawlihi taala ma kasabtum ndax yëpp dafa dugg ci wax ji yàlla subhanahu wa taala ne ci aaya bi buñ ci ñëwee ci tafsir bi na ngeen génne azaka ci lépp lu ngeen fàggu lépp loo fàggu ci alal dañ ciy génne azaka ci li ñu waxoon sànq ci nopp yi ak yi nga xam ne dañuy dañuy wax mu ne waxaasa bi charte nag waaye nag nit du wax rek xëy rek daal damay génne azaka dafa am charte lan mooy charte génne azaka ah ah ah aca ana kado yi kado yi kado yi montre yi charte génne azaka bismillah dafa am alal ji nu muy toll pour nga génne azaka noonu muy toll lan la waaw tollaay bi nga wax da nga leen dafa am nu muy toll pour ñu génne azak tolluwaay bi lan la mon montre rafet na de la ilaha illa ci ci ci ci alal ci alal ba pare un million bu ne nga génne juróomi lan loolu loolu loolu loolu ah waaw léegi léegi su ñuy génne azaka sarti mooy bu njëkk balaa ñuy xool alal ji ñu toll sarti mooy lu njëkk non balaa ñuy wax nisaab sarti mooy mu njëkk ah mu am at loolu mooy xam nga mun nga am nisaab fekk amul at sart bi ci njëkk mooy mu am at li ngay génne azaka na am at bu dee alal na am at kii dina montre kon ñaari montre dem na na am at soo amee at après nag ñu xool ndax mat na nisaab kon sart bi mooy na am at ah su amee at ñaareel mooy wa bulugu nisaab mooy mu mat nisaab loolu mooy li ñuy jàng ci aaya bu njëkk bi ñaareel bi mooy wujubu zakat fil xars azaka dafa war ci mbay mbay li ñuy bay azaka war na ci wa thimaar ak dugub ji meññeef bi lépp luy meññi wa zalika fi ma balaga nisaab encore loolu tamit na mat nisaab wa kazalika fil maadin ak mbell yi mbell lan mooy mbell almaadin mooy mbell luy mbell mooy lépp luy génn ci biir suuf mooy mbell ah ok iz yasmulu lafzul xaariju min al ard lu tax ndax bu ñu demee ci aaya bi ñu nar a ñëw suñu kanam dinañ fekk yàlla nee na lépp lu génn ci biir suuf na ngeen ci génne nañ ci génne azak ñetteel li ñuy jàng ci aaya bi mooy qubhul infaq min arradi wa tarkil jadid li gën a yées ci àdduna mooy kii génne azaka wala muy saraxe mu joxe lu bon yaakaar na am na benn histoire boo xam ne war nañ cee joxe cadeau de is dafa ah yow dafa mel ne histoire boo xam ne daf ñuy jàngal joxe lu baax ak joxe lu bon
Haarun ak Haarun delluwaatal
Haabil ak Haabil waaw kii Haabil ak Qaabil kon yow di nga am montre Qaabil ak Haabil Qaabil ak Haabil keroog ba ñu defee ñoom ñaar seen qurbaan yooyu pour kan moo nekk ci dëgg kan la yàlla àndal Qaabil mooy ku moo dem indi lu bon Haabil moo dem indi kuyam mi gën a baax ci kuy mi dafa dem ci gétt bi xool xar mi fa gën a baax mu ne kii laa jox sama borom Qaabil dem ci tool bi li mu góoboon ba yóbbu këram la fa des mbuub yi di yeeg lu kenn soxlawu loo xam ne xar yi sax soxlawuñ ko lii laa jox yàlla mooy daa teg ah innama yataqabbalu llah min almuttaqin inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyib yàlla dafa sell dafa set yàlla du jël lu dul lu teey lu sell comme lu bon la indi yàlla moom amul lu bon li leen di wan ne yàlla amul lu bon bay jël lu bon parce que yàlla bu jëlee sa lu bon amul fu mu ko def mooy boo defee tiyaaba benn tiyaaba lu mu lay jox mais boo defee lu bon du du ko jël de da lay bàyyi ak sa benn bon boobu ñu bindal la ko parce que amul lu bon lu mu la yokkal yàlla daal di jël xarum qaabil ma haabil ma yóbbu daal di bàyyi xa- xa- qaabil ak lu bonam kon dañu dañu sib dañu tere nit di joxe di joxe lu bon loo soxlaatul loo xam ne ah lii de daf ma fi sonal rek lii de day yokk sama armoire bi rek xaaral ma joxe ko way mum mi sax solatuma ko yenn saa yi nga gis ko am gan bu jógee kaw di ñibbi soxna si ne la waaw yé nga ni ko seet seetal li ma solul de gis nga am na fa ñam naa fa juróom yéer yoo xam ne solatuma leen waaye loo solatul noo koy joxe nit ah wala wala wala wala loolu ab jullit du ko def ab jullit suy joxe day joxe li mu gën a bëgg te mu xam ne ne aajowoo na ko xam ne ne lii lu baax la mu joxe waaye yow li nga bëggatul li nga xam ne loolu ab jullit du ko def kon ci aaya yi dinañ jàng xubxu mbon al infaq joxe min ar radi ci lu bon loolu kenn du ko def wa tarkil jadid nga bàyyi li bees sooy joxe da ngay joxe ci lu bees li da ngay joxe ci lu mat li da ngay joxe ci lu baax li loolu la ab jullit di def juróomeel mooy ijaabatu nidaa illahi wal amal bil irshad yàlla su wootee mbokk yi tey fii ñu toog suñu commissaire woowoon dinañ wuyu ji wala lu ñu wuyu ji kan mooy chef commissaire préfet ah bu ñu wooyee nañ wuyu ji wala lu ñu wuyu ji kuy chef préfet gouverneur ah maire maire bu nu wooyee ñu wuyu ji kuy chef maire gouverneur bu nu wooyee dinañ wuyu ji wala du nuyu ji buñ président de la république wooyee dina nuyu ji allahu akbar waaye yàlla nag ah dañu war a wuyu ji de allahu akbar kon nag yàlla moo nu woo kon ku yàlla woo ku ne li war ci yow mooy nga wuyu ji abdullah ibnu abbas nee na bu ngeen déggee yaa ayyuha allazina amanu mu ne taxaw leen da leen di wax def leen wala mu ne leen bàyyi leen yaa ayyuha allazina amanu boo dégg ci alxuraan bul dem taxawal daf lay wax defal wala mu ne la bàyyil tey danañ jël ci yaa ayyuha allazina amanu yooyu kon ku yàlla woo da ngaa war a wuyu ji loolu mooy sunu darsu tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم wa mimma akhrajna lakum min al ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يقول الله المولى برم سبحانه وتعالى نينا يا أيها الذين آمنوا أي نقم borom xam-xam dañ naan yaa xarfu nida yaa araf la boo xam ne fu mu jëm mooy day woote moom la tukulóor yi naan erango erango mooy ee mooy yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ana ñi gëm ñu ngi fi dafa am ku woote mooy yàlla am ñu mu woo mooy ñi gëm kon ñi gëm bu buñ ko déggee woote gi lu leen war balaa balaa balaa wuyu ji lu leen war ba pare déglu déglu woote bi ba ñu xam ki leen woo kum ñu dem wuyu ji ku leen woo borom bi mu ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ndeysaan ki ñu doon jàngal tafsir dama ne yaa ayu joo yaa ayuha alladina amanu joo gis kooku seeni borom texe nanu yaa ayuha alladina kafaru boo gis seeni borom xalku nanu ndeysaan paa bi loolu la daan wax yaa ayuha alladina amanu joo gis seeni borom texe nanu yaleen ci yàlla boole mu ne yaa ayuha alladina kafaru joo gis seeni borom xalku nanu yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ñu ne ah yàlla ne anfiqu joxe leen génne leen de joxe leen joxe allahu akbar joxe ci jaamu yàlla yi gën a metti la bokk julli yomb na torop woor yomb na de waaye xam nga la moo jafe joxe joxe moo tax wax naa leen dars bi passé téyeer yi fu ñuy def poos côté gauche ci wetu xol bi du wàcc du yéeg dañ koy indi ba ci xol bi teg bu yalwaankat bi ne ngir yàlla nga ni nii xol bi ne la moytul billet yi loxo bi nekk fa naan nii billet yi di ko puus yàgg fa torop di puus billet yi gis nga bu billet yi passé mu ne la non yu yu weex yi la de yu weex yu xaw a mag dafay xonk yi nga fii lañ la koy indil fii joxe ak a metti ak a jafe anfiqu joxe leen lu ñuy joxe yàlla mu ne min at-tayyibaat ci li dagan li teey li set lu teey gis nga tayyibaat ci li rafet li bees tàq teey jàng ngeen ñu ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla dafa teey set sell du nangu lu dul ku am lu bon yàlla du ko jël jàngeen hadis ba yonent bi nee na waa ji dafay ñaan yàlla mi ngi ñaan ba yëkkati loxo yi ba ñuy seen poqotaan yi waaye malbasuhu xaraam wa matamuhu xaraam ah li mu sol daa araam li muy lekk dafa araam environnement bi lu ko wër dafa araam yonent bi neen ku mel noonu naka lañ koy nangule te mi ngi ñaan yàlla mi ngi ñaan yàlla mais mi ngi nekk ci lu xaraam moom lay dundee ci loolu lay tëdd ci loolu lay fanaan loolu la sol naka la ko yàlla di nangulee mi ngi dund ci lu xaraam yonent bi nee na man akala luqmatan min xaraamin laa tuqbal lahu salaata arbaina yowman ku lekk benn dank bu xaraam dank bu araam 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu yenent bi nee na kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bi bépp alal boo xam ne cosaan bi daf araam mu ne safara moo ci yey safara nga am million yu araam xam nga lu ci yey sotti ci essence sal almet teg ko ci parce que boo ko lekkee du baax lu araam baaxul sooy joxe da ngay joxe lu baax jàngeen ñu ne ku jël alal ju araam aji jee ko màkk boo wàccee naan labbayk allahumma labbayk kaaw gi ci boppam moo lay tontu nan la wuyu wu ma la te woowuñ la fi jàngeen ñu ne képp ku jël alal bu araam aji jee ko mu ngi mel ne ku dem àll ba pare laaboo ay sawam est-ce que da ngaa set nga gën a taq kon jullit na fexe buy joxe mu joxe lu baax yàlla lan la wax anfiqu joxe leen su yemoon fii rek kon mun ngaa joxe lu ne waaye mu ne min at-tayyibaat kon pay mi mënul tabax jàkk mënul aj màkk mënul gas teen mënul faj jënd ordonnance mënoo ko def fi sabilillah gars yi nag dañ naan ah wallahi boo amee alal ju bon loo ci def rek garaawul yàlla dina la baal yàlla dina la comprendre waaw tey fii ni dund ak a néew nit ñuy contrôler li ñu am nit ñi na bari la ñuy xool waaye waxuñu na barkeel fekk barke moo gën lu bari amul solo lu barkeel lu baax lu set moo gën yàlla nee na anfiqu joxe leen min at-tayyibaati ci li teey min jayyidin amwaalikum min jayyidi ci li gën a baax amwaalikum ci seen alal wa aslahaha la ca gën a rafet gën cee sell bu ngeen di joxe joxe leen ci loolu bu dee alal ji ngay sol bu dee lekk bi même yekk bi ngay yekk ah soo ko na rafet bul yóbbu bool bi ni mu ni mu desee war nga kaa mën a def feneen fu ñu raxas ba mu set même bu deekee desit la est-ce que xam ngeen desit mën nañ ko tegal nit mu lekk ci ba suur waaye desit mën nga kaa tegal nit du ko laal mu suur këm ci defin bi la kon gis nga mbir mi bu rafetee rek nit ñi jël ko waa ji day wax ne mu ne potu ndaal bu ñuy laaboo ci duus potu ndaal bu ñuy laaboo ci duus buñ ko raxasee ba mu set defal la ci njarum soow def ci donju glace buñ la ko joxee waaye pot sàmbur bu bees taq bu kenn musta toog buñ la ci njaralee soow koo ko naan de danga naan mbii mu naan la noo bu bees la kenn toogagu ci da ngay génn ñibbi gis nga mu ne loolu moo tax lu bon baaxul lu bon baaxul moo tax kenn warta joxe lu bon même bu bëree baaxul kon yàlla subhanahu wa taala suñuy soññ daf ñu wax ne lu set lu sell lu teey tayib lu baax na ngeen ko joxe ba pare mu ne maa kasabtum ci li ngeen fàggu gis nga kon joxe ñu bëri nañ yaakaar ne man alal rek aw ma lu ma saraxe aw ma lu ma saraxe noo joxe ci yoonu yàlla tënkuñu ko rek ci ay dërëm tënkuñu ko ci xaalis ku nekk am nga loo am am nga loo mën loo mën a joxe yàlla lan la wax fi anfiqu joxe leen min at-tayyibaati ci li teey li baax li set sell maa kasabtum lu ngeen fàggu lépp loo fàggu liggéey ko moom ko war nga cee mën a joxe ci yoonu yàlla est-ce que tey amul ñu am ay kër est-ce que amul ñu am ay oto est-ce que amul ñu am ay compte banque est-ce que amul ñu am ay armoire lu yére est-ce que amul ñu am ay lu nekk mën nga ko wax ay tool est-ce que amul ñu am ay lu nekk mën nga ko wax loolu yépp yow yaa ko fàggu war nga cee mën a joxe ci yoonu yàlla te saxaaba yi li lañ doon li lañ doon def de ñoom tënkuñu woon seen joxe rek ci xaalis tey fi mu nekk nii ñun yaakaar nañ ne xaalis rek lañ war a joxe xaalis rek xaalis rek ah yow man de man wax dëgg yàlla bëggoon naa joxe mais dama amul fekk sa armoire baa ngi fees del ay bagage ah wala sa magasin mi ngi fees del ak képp mi ngi fees del ak mi ngi fees del ak mi ngi fees del ak lu tax loolu doo ci joxe kon yàlla nee na ñu joxe ci li ñu fàggu ndax li ñu fàggu rek la ñuy joxe de mu ne déedéet wa mimma ak ca la nga xam ne axraj naa lakum génneel naa leen ko minal ard ci suuf si suuf lan moo ciy génn lan ak lan mooy génn ci suuf ah ndax mbay mi rek mooy génn ci suuf déedéet or fu muy jóge pétrole fu muy jóge gaz fu muy jóge xaalis bi fu muy jóge or bi fu muy jóge jamaa bi lépp lépp luy génn ci kaw suuf loo xam ne yàlla moo la ko génneel joxeel joxe ci ci yoonu yàlla subhanahu wa taala lépp loo fàggu liggéey ko joxe ci lépp lu la yàlla génneel ci biir suuf nga am ko muy am am yàlla nee na joxe ci wa mimma axrajnaa lakum ak lépp loo xam ne génneel naa leen ko minal ardi ci suuf si minal xubub ci pepp yi wa anwaai simaar ak façon meññeef yi boo amee ay tool tool yi lépp lu ñu ñoral xamal ne war nga cee génne azak boo amee ay usine yu ñu samp ci suufu yàlla si ñuy reproduire xamal ne war ngaa joxe ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla moo la jox kon joxeel ki la jox kay moo la gën yàlla moo nu jox wala yàlla joxewul mbir yi huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ard jamia yàlla moo leen defaral lépp lu nekk ci kaw suuf kon nag nanu gore bu fi yàlla bàyyee ñëpp jox la war ngaa joxe comme ni la yàlla joxe ndax yow bi la yàlla di jox ëppoo nit ñi doole mënoo leen magoo leen jiitu woo leen fi am na ñu la fi jiitu fop ëpp la doole mën la mag la ëpp la lépp gën laa jàng sax waaye yàlla jox la kon ni la yàlla joxee joxeel yonent bi nee na yàlla day wax anfiq yabnu aadama anfiqu aleyka joxeel ma jox la joxeel ma jox la maa naqasat sadaqatin min maal sarax du wàññi alal mais da koy setal tey addina bi bu buñ doon joxee miskin du fanaan ci kaw suuf est-ce que xam ngeen loolu alal ji yàlla wàcc ci àdduna doy na kët Sénégal rek buñ doon joxe alal bi du fan nit du ku ñàkk du am xool ngeen inondation yi biñ fi ubbee ci télé yi ah ne nañ joxe nga gis gars yi ku nekk am ku gàddu sax 1000 francs ñëw ne man de 1000 francs laa am pour bëgg a génn télé gars yi di joxe ñaata milliards la ñaata la kenn daa xam nu mu toll waxuma la ak nag àddina bi alal ji fi nekk yàlla wàcce ko benn borom xam-xam bu mag day wax yàlla li mu wàcce doy na mu ne nit ñi ñoo organisé wul xoolal rek benn waaye bu ñu dénk ne ko liggéeyalal nit ñi mu dem sàcc milliards yi milliards milliards ñaata la mille millions waa ji ko doon misaal nee na da ngay tàmbali Dakar di lal ay billets dix mille ba sëbi xutaan billets yi tegaloo nii nii di laalante ba sëbi xutaan ñu ne ki am milliard bis bu nekk mën na dépassé ah trente cinq mille par jour au moins ba cent dix ans ba pare benn waaye ñëw sàcc ci sept sept milliards wala huit mille nga dégg ñu ne dix milliards la sàcc kooku criminel la dañ ko war a yóbbu ci stade sotti ko essence taal ko kenn waru ko tëj billaahi ñooñu ay assassin lañ yéen xamu leen xoolal milliards ni mu toll benn nit sàcc ci sept huit dix lu mu koy dee ah te alal joo xam ne yow moomoo ko nit ñee ko moom nit ñaa ngi nii sonn bay bëgg a dee boo demee hôpital bi gis ñoo xam ne xoolal fii par jour vendredi bu ñuy julli nit ñi dañuy rang fi ordonnance guddi ordonnance bëccëg ñii di oh sa yaram day daw léegi nag benn waaye bu mel noonu ñu jox ko alalu réew mi mu dem mu dem mu dem di tëdd ci nga dégg ñu naan seen kër yi lañ gas ay foos tabax ko climatiser foos yi dugal ci xaalis bi ndax du lax mais loolu loolu loolu ñooñu ay reykati nit lañ yéen da nga ne rey nit mooy ku ku ki nit rek jam ko paak yéen la nga defal rey nit bii nit nit ku ko teree lekk rey nga ko nit ku ko teree naan rey nga ko nit ku ko teree faju rey nga ko yaa ko rey ki feebar war a faju hôpital baa ngi nii du ñu fayee barke dem laa dégg ñu ne Abbas Ndaw dañuy grève parce que duñ xaw ma nangam nangam di commencé ah loolu yëpp lu ko war ana milliards yi anamu bés bu ne nga dégg milliard milliard milliard milliard mais milliard fu mu dugg ñooñu war nañu reetaan ay fan mais nag dañ ko dul gis duñ ko dégg kon dañu xam ne gis nga islam ni mu organisé bu ko nit ñi dundoon kenn du am problème parce que l'islam du jël alal ji jox ko benn waay ne ko bismillah yow ya déedéet l'islam da koy teg ci yoon bi nit ñi liggéey bu dee hôpital bi la kenn du ko jox directeur bi dañuy fexe ba hôpital bi li fi nekk lépp yemb ku ñëw faju doo jënd garab bu dee ndox la ñëpp di naan ku nekk ndox dugg sa kër ñuy contrôler nag yàqkat yi bu dee courant la ñëpp dugg mu dugg loolu la islam di def alal ji ñëpp bokk ko waaye fii tey dañuy jël alal bi jox ko kenn nit da ngeen barki démb gars yi nee nañ xaw ma la kañ dañuy dem commencé dem place de l'Obélisque commencé waa Y'en a marre nee nañ dañuy commencé waat parce que lii lañ la waxoon gisuñu ci dara gars yi commencé jënd ay oto yu luxe ay lu kenn xamul waaw fu ñu jëm réew moo xamante ne yéen bu ñu leen joxee réew mi ne leen defar leen ko nit ñi dund ngeen jël alal ji di ko dundee di ko jox seeni famille ak seeni mbokk commencé fu nit ñi jëm jullit yee war a yeewu di fal ay jullit gis ngeen Omar ibnu Abdul Aziz bi mu nekkee amirul muminin lampe pétrole la amoon réunion ba pare fay lampe bi mu am gan toog ak gan gi di waxtaan ak moom ci lëndëm gan gi ne ko doo taal lampe bi mu ne ko pétrole lu jullit yi la te yow li nga mën a yow li ñuy wax suñu soxla la lii ñuy wax man ak yow suñu soxla la lii nag jullit yee ko moom bu ñuy réunion mbiru jullit yi ñu taal ko man ak yow bu ñuy wax suñu problème awma lu ma jënd sondal président de la république gars yi seen oto yi essence bi ku koy fay journaux yi ñuy liir ku koy fay téléphone bi ku koy fay ñoom ku leen di fay fi ñu dëkk ku koy fay seen dund ku koy fay lépp réew mi koy fay te liggéeyu lu ñu réew mi encore yow réew mi jëlal la lépp loolu doyu la ngay sàccaat li la réew mi jox ma ne wallahi kenn waru leen a yóbbu di leen jugé di dañ leen war a yóbbu ci stade futti leen comme seen yaay nu mu leen jure sotti leen gasoil taal leen public bi di xool ba ñu jeex taj waaw dóom taal bi sax noonu lañ koy bàyyee football ci stade bi kenn du ko tonni ah Sénégal xool leen nit ñi ni ñu ndóole nit ñu sonne léegi da ngay jox ba ci àgg gis benn waaye bu toilette keroog benn waaye moom a koj billahi parfum bi ñuy xeeñ toog naa fukki at mosuma koo xeeñcu mu ne ma waaye ñaar fukk laa bëgg de parcelle laa jëm ñaar fukk xoolal loolu xoolal loolu nu méttee sëñ bi dimbali ma rek ñaar fukk rek waa ji ngi toilette mais xoolal ñaar fukk tëna ko loolu loolu dafa garaaw fu nit ñi jëm foo tourné léegi nit ñi dañuy yelwaan léegi dañuy jaay fondé dañuy jaay cere dañuy jaay lu nekk la ñuy jaay guddi gi te lépp ay jeex da ngay gis sax léegi nit ñi rang rang fondé teg ay kopp di rang mel na ñuy pikiiru hôpital ndax xiif gu métti nit ñi dañu sonn fu nit ñi jëm fonde bu ndee ba koy jaay Sénégal démb démb ay at a ngi ni yu néew ñii ngi ay mag lañ kër goo duggoon fekk ñuy reyee fonde da nga leen di yërëm wala démb Sénégal kër goo dugg ñuy reyee fonde da nga leen di yërëm waaye tey ñooy ñooy patron yi ñooy patron yi xam nga loolu musiba la ci réew moo xamante ne chaque jour ngay dégg ay milliards gis gars yi di dawal oto buy jar 10 millions 15 millions 50 millions ah waaw loolu dafa jaadu ah waaw parce que alal ji nit ñi orga jaar nañ ko fu mu war a jaar day gën a métti c'est c'est vrai borom bi ne wa mimma ak lépp loo xam ne axraj naa lakum génneel naa leen ko minal ardi ci suus wala tayammamu ngalawaay bu leen jaxase bu leen jublu alxabiisu lu bon minhu ci moom tunfiqu na ngeen koy joxe suñ leen ne joxe leen bu leen jël li bon di ko jaxaseeg li baax di jéem a affaire bi moo bul jël lu baax lépp joxe ko nag da ngay dégg ñu ne lu baax lépp nga bëgg a joxe boo boo la jëlee déedéet kuy joxe lu baax ngay joxe boo boo la ci xooñ yi xooñ bi xooñ bi yóbbu ceeb bi yëpp yow xooñ bi bëggoo nga bëgg a joxe ceeb bi nga bëgg nga bëgg ko bëgg ko joxe xooñ bi kay ni nga ko bañee noonu la ko taale bi bañee ah waaw wala nga gis kuy joxe bala muy joxe day bu dee bu doon sarax suba la nga gis day jël day jël lan suukar bi def ko nii di ko wëral boppam juróomi yoon ni ko nii wëral ko wëral ko wëral ko juróomi yoon doo nga ne taalibe bi mu naan mën a am léegi mooy lan mooy sama musiba bu nekk ci man yëpp sama doom yi musiba yi nekk ci ñoom sama jabar musiba bi nekk ci ñoom sama liggéeykaay musiba bi nekk ci moom oto bi musiba bi nekk ci ñoom ci suukar bi nga jox ko xale bi xale bi dafa attan loolu mooy waa ji dof bi gisoon waa ji jënd picc jënd picc jël picc mi ne ko kër kër kër kër kër kër ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ne ko ci picc mi tëf sànni picc mi picc mi dem teer ne nii mënu naaw dof bi xool waa ji ba ci yàgg ne ko grand mu naaw mu ne ko li nga ko sëf dafa diis ne dëgg li mu sëf picc bi picc mi àttanu ko loolu xale bi daf ko àttan mooy sama musiba na la topp sarax boo xam ne da nga naan sama fii da ngay dégg ñu ne yëre bu lakk dañ koy yëre bu lakk ñu ne ii bul ko solo ci de saraxe ko léegi dangaa bëgg koo ko sol ko tàkk est-ce que loolu innamal muminuuna ixwa la yow li nga bañal sa bopp nga koy bëggal sa mbokk dëkkandoo Abu Darda saxaaba la woon këram dafa banoon ay jinax mu xeex ak jinax yi jinax yi bañ a dem mu def lu ne lu mu teg jinax yi lekk benn waaye ne ko da ngay dem àll ba ut punkalu muus indi ko ci kër gi mu dem àll ba yendu di rëbb ba jàpp muus yeew ko indi ko bi mu ñëw ba ci buntu kër gi xelam ne ko waaw yow soo dugalee muus mi ci kër gi jinax yi gis muus mi tiit daw fu ñuy dugg mu ne ah sama kër dëkkandoo mu ne léegi yow li nga bëggul sabab ngay lor sa dëkkandoo mu bàyyi muus mi muus mi ñibbi xoolal ñun xoolal ñun nañ xool ñun suñu bopp ñun faale woo sa dëkkandoo gis nga même da ngay gis kuy tabax côté këram da koy rat da koy raax peinture miir bi féetee kër gële ah mu bàyyi ko noonu loolu du islam islam nee na booy raax côté bi nekk kër jàmbur nga war a raax mais nga defar sa kër ba mu rafet nga bàyyi kër jàmbur mu ne yundum loolu du diine diine lim ñu jàngal bu ñu ko doon dund tey duñ mel nii wallahi te munuñu normal lu dul ñu am diine munuñu normal fekk dund nu diine fekk ñu nekk ñu am diine nekkuñu suñu kanam ndax diine mooy yërëm nit diine mooy baaxal nit diine mooy tax nit ñu dénk ko 3 millions nii ci keesam amul amul lu mu xëyee paas waaye fii ko amul diine boo ko joxee juróomi dërëm boo demee mu ne jëndal ma ginaar ma reer waaye yow xam naa ne soxlaagu ko boo ñëwee ginnaaw solo mu ne fii la xari jaar ak béy yi yàlla suturaal borom bi nee na bu leen jaxase bu ngeen di joxe bu leen jaxase laa taqsidu bu leen jublu arradi li ñaaw ngeen jël ko tunfiquna minhu ngeen di coppati ci lu baax li di ci rax lu bon li di joxe ba jaaykat yi sax dañ koy def da ngay gis ku war kuy jaay ji au lieu mu suukar suukaru normal bi day jël suukaru jabet bi daal di koy def ci paane paan bi def ci ñaari doog doñu suukar yu yu yu normal waaw parce que nit ñee koy ah nit ñee koy jënd de man de sama yoon nekk ci ku ci naan boo jabetee bu yoboo nga dee man de ndax ñaa jar la rek lu nekk dañ koy yokk soo mi kiy jaay da ci yokk ndox poobar bi kiy jaay day dëbb dugub sotti ci tiga dégg gi ki koy jaay day déedéet du ci def ndox de am na leneen lu mu ci def xam ngeen xeeru raay buñ ko lakkee bu mu xëm boo ci def lii boo ci defee diwlin bàtti ko mu nekk tiga dege te xam ngeen loolu mu xeeñ la tiga dege gi gis ku koy jaay ci marché bi nga ñëw mu ne xool ni mu neexee ñawal mooy kew kew kew boo ko lakkee bu mu xëm ah nga dëb wal ko ba mu mokk boo ci sottee diwlin bàtt ko mu nekk tiga dëgg nga gis ku koy jaay dégg ngeen temps yi ñu ne am na ko waa ji doon jaay yàppi mbaam ay at marché savanel ñu jàpp ko gis nga de fii fii loolu moo ñu teree loolu moo ñu teree dund loolu moo ñu teree tedd parce que nit ñi am am la ñu yitteel waaye lu baax yitteelu leen te yàlla nee na wala tayammamu bu leen jaxase bu leen jublu alxabiisa lu bon minhu ci moom tunfiquna ngeen koy joxe bu kenn jël lu bon di ko saraxe lu bon kenn du ko sarax dégg ngeen fi waa ji saraxe jaan fekk gumba bi yelwaan mu laxas jaan ci paquet ne ko am dégg ngeen fi ku saraxe bopp nit wala yeel ay yeel ku ñu saraxe yàpp ne ko lii yàpp la mu yóbbu këram fekk ay yeelu nit la gis nga lu ne ngay gis Sénégal lu ne ngay dégg fu nit ñi jëm kañ la ñuy tedd kañ la ñuy texe kañ la ñuy dugg aljanna ci lu bon yi ñu nekkee borom bi nee na walastum bi aaxizihi yéen bu ñu leen joxoon lu bon ndax di ngeen ko jël wuy leen yàlla mu ne walastum du ngeen moon mun a nekk mukk bi aaxizihi di ko jël suñ leen joxoon lu bon kan ci ñun fii la ñuy jox lu bon mu jël ko yëkkati sa loxo waaw comme yow bu ñu la joxee lu bon doo ko jël noo koy joxee loolu nit ñi war nañ cee xalaat jàng leen xadis yonent bi nee na laa yumin ahadukum hatta yuhibbu li axiihi wa yuhibbu li nafsihi li nga bëggal sa doo mën a gëm yàlla lu dul li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk jullit bi li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk jullit bi est-ce que tey nit ñi noonu la ñuy dundee déedéet mooy man kay naa dund na nit ñi dee ndeysaan ñetti saxaaba àndoon nañ ci xare ñu jam leen kii nekk fële kii nekk fii kii nekk fële ci ginnaaw ku nekk naan may leen ma ndox ndeysaan may leen ma ndox gars yi daw indi ndox biñ ñëwee ci premier bi mu ne mu dégg deuxième bi di wax mu ne demal jox kee moom a gën a sonn ñu dem ci deuxième bi mu dégg premier bi mu dégg troisième bi naan may leen ma ndox mu ne dem leen ci kële ñu dem ci troisième bi ñu fekk balaa ñuy yegg si mu dee ñuy dawaat di ñëw ci deuxième bi mu dee ñuy dawaat di dem ci première bi mu dee kenn ku nekk da ngaa bëggoon sa morom naan ndox mi mucc yow nga dee bu doon ñun la fi ah ndeysaan wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yonent bi am na gan amul lu mu lekk mu xool saxaaba yi waaw kan ci yéen mooy yóbbu gan gi kër ga benn waaye ne ko yonent bismillah te moo gën a ndóol yonent bi moom it di waaye mu jéngu mu ñëw ne soxna si ndax am na lu fi nekk yoon ne ko ah soxna si ne ko ah xanaa man ak yow ak xale yi lu ñu waroon lu ñu waroon reere kii boobu mu ne ko léegi xam nga nooy def fexeel xale yi nelaw fexeel xale yi nelaw léegi man ak yow ñoo ci des comme affaire bi bëriwul bu ñuy lekk da ngay fay làmbi ñun ñaar nañuy dugal suñu loxoom rek di coqom coqom yi mais bul tibb nag ba ganu yonent bi suur ñu def noonu ndax xale yi xale yi tëdd ñu teg bool bi fay làmbi ñu ne bismillah gan gi ñoom ñaar ñuy dugal seen loxo te naan affaire bi neex na de ay lekkal waaye sëñ bi fekk lekkuñ dara gan gi lekk bu suur dum tudd ndeysaan ba ñu xëy fajar rek al aaya bi wàcc gis ngeen aaya bi di bégal ñoom ñaar ñooñu li ñuy def di ko wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam xoolal ñooñu ni ñu meloon ah bu doon ñun la fi da nga ñii heure bi kenn du dox ah sonale quoi fattaate bàyyi ba lekk rek ñu ñëw nga yenn saa yi si nga gis ku ne soxnaam bàyyil foofu affaire ba ci kanam bul ko wàcce de bàyyi ko foofu mais musiba moo tax it gis ngeen nu ñuy sonne comme dunoo siis bon soxor ñu dimbali miskin jàng ngeen imaam ali wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nutimukum Ousseynou moo feebar Ali ak Fatima ñu ne wallahi bu wéree dinañ woor ñetti fan sant yàlla mu wér ñu tàmbali woor ba ngoon ñu bëgg a ndogu miskin ñëw ne ay gañ naa lekk ñu ne ko jëlal ndogu bi yóbbu ñu continuer ndogu bu ñëw ñu xëyaat enchaîné xëdduñ Aliou daaw génnaat fajar gi taqale ji ba am pain au lait ñëw ñuy waaj a tàngal jaam ñëw ay waaye ñetti fan a ngi nii ñu ne ko jëlal ñu continuer troisième jour kan moo ñëw jirim ñu xam dañoo xam yàlla di leen tagg ci aaya boobu te ba ñuy jox ñetti ñooy ñu lekk yépp ñu ngi naan leen innama nut'imukum li wajhillah ah ñu ngi la koy jox de waaye yàllaa tax bu ñu génn fii mukk nga taxaw naan jóob njaay mburu ma neex na kafe gi bëri na yàllaa tax ma la koy jox gis ngeen kon jullit yi foog ñu delluwaat ci démb foog ñu delluwaat ci téere yàlla bi xam ne li defaroon nit ñu baax ñi démb loolu donc moo ñu mën a defar sans loolu nii rek la ñuy mel nii nii ki la fi gën a am moo la gën a siis moo la gën a soxor li mu am bu ko bokk ak kenn borom bi nee na walastum nekku leen bi aaxisihi di ko jël bu doon lu bon la illaa lu dul nag an an tuxmidu portable lu ko taal lu dul nag mu jaxasoo an tuxmidu fiihi ngeen doon joxe loo xam ne seen bët jotu ko gis mu jaxasoog moom loolu day mën naa dem waaye loo xam ne moom yéen a ko tey yéen a ngi ko ne fàng di ko gis bu leen ko joxe waaye bu fekkee li ngay joxe bi nga tibbee di ko joxe am na leneen lu ci jaxasoo loo xam ne bokk ci loo xam ne baaxul wala dafa yàqu mais bi ngay joxe gisoo ko loolu moom mën naa dem borom bi nee na waala mu xam leen anna laa yàlla ganiyun mooy aji giijal ji mooy aji oom la ji mooy aji am ji comme yàlla am nag moo leen la joxeel boo joxee mu jox la gis ngeen chaque jour ma wax leen alxuraan bu ñuy jàng alxuraan nañu bàyyi aaya yi fu muy fee semaine bii passé samedi passé bi ñuy tafsir aaya yi aaya bu jeex yàlla li muy wax ci lay jeexale gis ngeen aaya bi ci mbirum lan la ñuy wax am am wala lan la la jeexale mu ne wallahu yàlla xaniyun yàlla moo leen ëppale xani mooy ki oomal xam ngeen luy xani mooy koo xam ne bu ko nit ñi joxul it faalewu leen loolu olof yi ak borom pañe faalewul borom ŋàdd xaw ma waaw déedéet dañ naan borom ŋàdd faalewul borom pañe ñu tontu leen ne daa fekk mayewuñu waaw ku am ŋàdd di tiitaru naan faalewu ma borom pañe bu ñu mayee de bu ñu mayee rek nga torox yàlla nag xanii moom faalewul nit ñi ndax nit ñi liñ yor moo leen ko jox gis nga même aj yàlla bi mu nee ñëw leen aj si lu mu wax ku ajiwul yàlla faalewu la ndax yàlla moom bu ngeen ko jaamu it faalewu leen yàlla nee na àdduna bi nit ñi ak ginne yi bu ñu àndoon di jaamu yàlla ñoom ñëpp kenn moyu ko du yokk ci nguuru yàlla gi tarfataayin bu ñu àndoon ñoom ñëpp di ko moy du ko wàññi dara kon yàlla xanii waaye xamid moom yàlla mooy ki ñu war a sant ndax lépp moo ko joxe mu ne na ngeen mooy tandiku as seytaanu seytaan waaju bon jooju noonu yàlla boobu noonu jullit mi ngi fi de moom seytaan yaidukum mu ngi leen di dig alfaqra ñàkk seytaane moo naan la booy jox di ñàkk gis nga nekkal fi di joxe rek di jéem a yaa baax ak di jéem a daan da ngay ut tiyaaba demal rek léegi nga ndóol seytaane mooy def was was boobu ci sa xel di la jax-jaxal soo waree joxe mu naan la bul joxe bul bul joxe tamit yow cent franc nga yor noo ciy joxe yow cinq cent bi kese la nan nga koy joxe toog ah moytul seytaane was was yooyu la lay def nga bëgg yenn saay sax nga lem benn mbubb bu rafet bu ko jox mu ne yuuhu kii de waa ji dënal da ciy takk ñaareel de nga teg ko ut bu xuur joxe seytaan moo lay def loolu pour di la tiital yaidukum moo leen di dig alfaqra ñàkk wa yaamurukum mu leen di digal bil fahsha i ci lépp lu ñaaw yaduukum mu leen di woo ila irtikaabil fawahish ci fàggu jëf yu bon wa minha al buxlu wa suxu seytaane moo leen digal sax ngeen nay ak ngeen ŋot waaw nay ak ŋot seytaane moo leen ci dugal kon nag na ngeen xeex ak moom ba bu leen buggee dugal ci loo xamante ne da leen di bokkloo ci mbooloom génne leen ci yoonu yàlla ngeen lànk seytaane da leen di dig ñàkk di leen di digal lu bon ak lu ñaaw bu leen ko topp wallahu yàlla moom yaidukum mu ngi leen di dig magfiratan njéggal minhu bàyyi ko ci moom yàlla nee na ku joxe ma jéggal ko magfira njéggalam moom yàlla subhanahu wa taala wa fadlan yàlla moo leen di dig ay ngëneelam ku joxe mu yokku la ku joxe mu suturaal la ku joxe mu aar la ku joxe mu yokk sa yërmande wallahu yàlla waasiun mooy aji yaatu ji waaye alim mooy aji xam kon mbokk yi ci kàttanu buur yàlla subhanahu wa taala lii mooy sunu darsa tey ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu